wala seen ay problème mu avenir. soo xee léegi léegi rek ci wàllu vie sentimentale bi képp ki xamante ni nag da am sa nit muy góor wala muy jigéen nga nekkoon ci benn relation yéen a xam muy sëy wala wàllu bëggante wala yaakaar ci wàllu dugg ci biir sëy dem ba ci biir am ci ay rëq-rëq wala am ci ay gàllankoor ak bu mu ci mënti doon rek incha allahu rabbi xefe leen ngeen contacté ñu dinañ ci seet. wax leen ci lan moo ci ay saraxam ak lan la ñu mën def bu relation boobu wax dëgg yàlla daal de saafaraw sëy mën ci taxaw wala sëy boobu bu amoon ay xat-xat sax suñu borom dina ko mën a dindi yaatal ko ba loolu daal de am jàmm ak salaam surtout bu amee ay influence wala ay yàq-yàq ak lu mu ci mënti doon rek dinañ ci def ñaan bu baax a baax a baax euh, rawatina nag ñi nga xamante ni itam ñoo ngi liggéey ci wàllu këyit yi. wàllu avancement ci seen liggéey wala boog ñu ngi liggéey waaye ñu am dara wala mënuñu am xaalis wala xaalis ci yàqu yi demee noonu ñooñu ñëpp incha allah rabbi mën nañu contacter ñu seetal leen ñaan sarax ak yéen ñaan lañ leen mën defal ci wér dëkk ci wàllu istixaar dugg xëlwa ak ñaan ñu mel ñu mën leen ci defal ay ñaan ba loolu yëpp sotti ci seen liggéey loolu yëpp amul benn problème incha allah rabbi ñoo leen di xaar euh, rawatina itam ci wàllu ñu am seen jafe-jafe seen wàllu wér-gu-yaram

wax la traitement bi wax la bu dee médecine hôpital moo lay faj incha allah rabbi ñu teg la ci yoon bu dee médecine traditionnelle yi ñu xool na la ñuy def ba jàppale la ci wala ban yoon lañ lay mën a fajee ci alxuraan incha allah rabbi kon nag ñu ngi leen di xaar comme ni ñu ko waxee contacté leen rek ci numéro yooyu ñu joxe dana leen ci jàppale bu baax a affiché 77 646 41 21 ak bii nga xamante ne mooy sama numéro direct di 169 45 45 77 169 45 45 mooy sama numéro direct incha allah rabbi képp ku ci woote rek di nga ma jot man sama wàllu bopp dinaa la wax nan ngay mën a def ba ñu mën a li si xaaral seetal la euh, defal la voyage bi xoolal la say mbir yépp sarax yéeg lépp li ci war rek incha allah rab ñu defal leen ko euh, lis si xaar nag wala seet nag dagan na ci lislaam parce que nit lépp loy dugg rek war nga ko xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ni lépp loy dugg rek mën nga ko setlu ñu xolal la ko ci istikhar lolu du dagal la ginaaw ñu lépp ñu defee ci alxuraan lañ koy def ak ci xasaatu Serigne Touba yi nga xamanteni mom lañu Serigne bi baye te ñun ñuy ay taalibe rek amuñu ku dul Serigne bi wax deug yàlla lépp li xamanteni rek ñu ci biir adina rek yàlla def na ko ci biir alxuraan ndax yàlla mo ci ma farat na fi kitaab min shay'in law anzalnaa haazal qur'aan jamalin jabalin laaradaytuhu 'aashi'an mutasabbihan mutahshilan kon nak lépp ne ci biir alxuraan te duñu wax mukk luñu xamul wala duñu seede mukk li nga xamanteni gëmuñu ko wala gisuñu ko li nga xamanteni rek mom lañuy wax ci alxuraan wa ma shahidnaa ila bimaa duñu seede mukk li nga xamanteni xamuñu ko kon nak mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen sant di leen gërëm di wax ni rek ñoo ngi xaar ci 77 169 45 45 incha allah rabbi Guédiawaye arrêté walas jërëjëf